ñu war a ittewoo suñuy situation wu doom ak situation wu réew mi fu mu toll ñu tekk ak côté indi ay négociation waki deal politique je pense que ni jamono yooyu dugal nañu réew mi ci incertitude boo xamee ne ku nekk am nga sañ-sañu suppité am nga sañ-sañu ñaaw njort am nga sañ-sañu jaaxle par rapport ak ëllëgu réew mi maa ngi lay wax léegi ni la dialogue politique bi li mu réaliser ci réew mi mooy exploser loo na calendrier républicain bi ak calendrier électoral bi muy benn kon bu fekkente ni da ngay dem ci sa ay nawle am confiance ci ñoom ñu am confiance ci yow dénk la benn mbir pour une durée déterminée mandat ba dem ba jeex ñuy tendeefal ak di continuer di ko taw wi ça pose un problème pour la démocratie pour la sécurité même du Sénégal et dans ces conditions là li nga xamee ni man moom laa wax depuis le début man dama jàpp ni li ñu bëgg ñoom bu sottee duñ la fi organiser benn élection lu dul rek dinañu dàq lépp di ko dàq di ko dàq ba mu gën a sore ñu mën a organiser seeni situation muy seen présidentielle comme ni ñu ko gisee parce que la conséquence mooy lan tey jii ni opposition bi di taxawee di dox xam nga ni 2017 on a de peu unité de l'opposition mu waroon ñu indil ñu gañaay gañaay bu leer naññ ci élection législative yi tey jii dem gii nga xamee ne une partie de l'opposition dem na ko ci pouvoir bi dafa gën a consolider l'idée que ni amatuñu choix que ni la ñu doon évoquer démb ba tax juboowuñu jàpp naa ni tey jii buñ ci demee lu ñuy jéggi bu gaaw la parce que xam nañ ni enjeu bi gën a rëy mooy tey jii comment faire pour gagner les locales mais ensuite comment faire pour avoir la majorité à l'Assemblée nationale. Également, parce que boobu temps également boobu temps également ma ñëw ma ñëw ci conséquences yi rek. boobu temps également enjeu yi c'était ça. naka lañuy def ba gagné euh, lii di élection locale wala naka la ñuy def ba gagné euh, législative mais pourtant gis nañ ne que opposition dafa diviser wu dafa séparer wu alors qu'est-ce qui nous dit également que euh, pas bi également du nekk la même chose. mais xam nga moom ak marche doomu aadama yam on retient toujours les leçons et il n'est pas dit que di li ñu bëgg ci instant bañ ko bëggee lañ koy am mais les leçons ont été bien apprises et retenues à mon avis mais li nga xamee ne mooy mooy mooy mooy mooy menace bi gën a rëy mooy menace bi gën a rëy à mon avis mooy que ni tey jii xam nañu ni suñu histoire bi passé boo indee élection législative yi gis nañu ni ñu yàqee lii nga xam ne ni mooy fichier bi gis nañu ni ñu indee parrainage yi gis nañu ni ñu indee caution yi gis nañu ni ñu wet wetalee ak ni ñu acharné woo ci yenn acteur politique yi ba xañ leen élection présidentielle tey jii boo fi organiser élection législative yu opposition gagné injustice yooyu nga xamee ne teguñu ko fenn yépp dañuy am capacité mën ko dindi laata ñuy dem ci ay présidentielles soo dajalee enjeu yooyu yépp par rapport ak ñoom da ngay gis ni amuñu benn yoon objectif ñoom may opposition bi possibilité pour mu am ndam ca mbir yooyu moo tax ma ni la danger bi dëgg dëgg dëgg dëgg mooy bu nit ñi jàppee ci benn mbir ba attirer attention sénégalais yi ak confiance sénégalais yi bu ñu ko fa bàyyee fekki pouvoir bi dañoo fragiliser suñuy institution yàq li nga xamee ne mooy sookul bi nga xamee ne mooy permettre réew mi mën a ñoŋ parce que am réew bu ñàkkee élection lu fa mënti am xam nañu fan lay jaar et je pense que dans ces conditions là interpellation sur interpellation ku nekk si ñun surtout au niveau de l'opposition dañoo war a takku taxaw bàyyi la ñu yoon jàpp démbak bërki démb te jéem a def le maximum et c'est ça mon intention et je pense que ni mooy li ñor ñu bari ci biir opposition bi pour que ñu def large coalition boo xamee ne dinañu dimbali ba objectif yi ñu am ñu mën ko atteindre. mois de bi dañu waroon dem ci ay élections locales jàpp nga ne que ci 2021 bi daañu ci organiser ay élections. loolu day presque léegi loterie la imagine toi suñu yaa ngi doon observer processus démocratique au Sénégal depuis des années. ce qu'il a fallu depuis les années de Braise li ñu fi liggéey li ñu fi xare pour mën a am li ñu am comme acquis démocratique addina yëpp nawee ko Sénégal léegi lan moo ci des ca lañ doon xeex ba jàpp ko ci jamono 2000 est-ce que nit ñi am nañu sentiment que ni ci démocratie réelle la ñuy taxaw tey jii appareil d'État instrument public yi amul benn yoon boo xamee ni sénégalais bi selon critère d'appartenance politique am si la fay féexe wala si lañ koy ostraciser mu mel na ni dañuy dox à rebours au lieu ñuy marché pour conforter suñu démocratie conforter l'état de droit bis boo yeewoo suba da am ay indicateurs yu lay wane ni fii mu nekk nii Mamadou la ak di fii mu nekk nii justice bi mbaxane dootu fa benn mais mbaxane cinquante mille la fa fii mu nekk nii la ñu xam ne assemblée nationale taxawatul ci cëram yi mu war a taxaw amatul séparation de pouvoir dañoo mel ne dañoo instrumentaliser théoriser larbinisme comme muy système boo xamee ni moo war a doon li nga xam ne moo moo téye suñu institution en réalité coono yi ñu daj yëpp de 2011 jusqu'à ak na mu taree ci sénégalais yi ak prix bañ ca fay est-ce que tey jii un acteur politique ci Sénégal war naa mën a am sañ-sañu xool sénégalais yi rek bëgg leen imposé troisième mandat est-ce que war na nañu toll bu ñu xoolee fa ñu bu ñu projeté suñu taxawaay ca 2011 ak taxawaay ba na mu taree woon ak na mu mette woon est-ce que quelques années après le débat au Sénégal devrait être posé sur l'incertitude sur les élections ak incertitude kañ la ñuy voter kañ la ñuy organiser législative kañ la ñuy organiser présidentielle ndax président bi dina am ñaari mandat du am ñaari mandat ak liñ fi daj ci projet constitutionnel boo xamee ni moom Macky Sall moo ko sookeel boppam wax ci kanamu sénégalais yi ni da ngeen doon wax affaire mandat constitution bi leer na nañ waaye na mu leere woon sa bu mu bëggee nax sénégalais yi tey jii noonee la noonee la lëndëme bi nga xamee ni ñu ngi ruu mandat ndax danañu def troisième mandat wala duñ ko def et ça un pays ne peut pas fonctionner comme ça moo tax ma sànq moo lay interpellé nii li ñu rey mooy l'essentiel de notre temps ci ay question folklorique sans importance lañ koy wékk bàyyi li nga xam ne mooy àll kalaj gi duñ ci wax duñ ci yëkkati. alors da nga bëggoon euh, dem très rapidement. ci waaw ci vidéo bi rek. laata ñuy jàll ci émigration irrégulière. parce que tey jii ku déggul wolof euh, boo ko ñëwee fen day naan lan mooy fen da koy wan vidéo bi. Euh, gis nga gis nga gis nga les choses il faut il faut que ñu koy tuddee seen seen seen tur xam nga kilifa sëñ Babacar Si radiyallahu taala anhu dafa ni nit góor. du tiit ba fen te gis nga ñii nii sénégalais waratuñu am respect si ñoom parce que même président Macky Sall moo leen gën xam nga tey lu leen président Macky Sall gënee ba mu demee ci kujje gi mënoon na ko nekk foofu di di président Abdoulaye Wade mais moom mii ba mu amee avantage si opposition bi jamonoy Abdoulaye Wade lan la def dem dugaat palais di négocier koo xamante ni toute sa vie ci ay négociation la ak ay deal la bu defee lii dafay wane carrément que ni moom addunaam lenn moo ko intéressé mooy ay raccourci liggéey taxu kaa donc na sénégalais yi xam carrément que ñoo xamante ne ay homme politique nañu tuddee seen bopp ay kilifa ñi ngi ci dëkk bi di def naka sudul noonu te kenn du ko tudd bu ñu yaakaaree nag président Macky Sall bu yaakaaree nag comme Idriss Seck am na ay bons communicants yu ko wër que day am difficulté ñu koy ñu koy ñu koy ñu koy mën a jàppale ci débat yi bu leen récupérer ñoom dinañ mën a défendre son bilan na xam ni gis nga ay fen ak leen défendable kenn mun koo defendre dañuy sonal seeni bopp te beneen mbir bi bu ñu yaakaaree aussi que dañuy dem ci réseaux sociaux yi jël ay nit di naan dañuy saaga nit nan tere ñu ni kii borom del bu rëy bii li mu wax fen la day sonal boppam parce que gis nga Sénégal loolu moo ko yàq mooy xale yi léegi ndaw yi sama classe gi ñooy dem di topp nit ndax 10 000 francs ak 5 000 francs 5 lay fay ngay toog di saaga nit te kooku defu la waxu la alors que yow yaa ngi défendre koo xamante ni mi ngi toog di nax askan bi di dundee ay ñaata milliards 7 milliards 7 milliards ñaata emploi lu Sénégal ñaata milliards ni ñuy jël ay privilèges ñu jël di ko jox ay nit parce que lan la dañuy gérer seen ay avantages seen ay privilèges donc il faut qu'à un moment donné sénégalais aussi ñu xam lu ñu bëgg parce que bu faloo Sénégal moom ma xam ne Sénégal moom yàqu na. très bien alors ñu <laughs> wax Bamba c'est parce que li nga da nga am lu am solo loo wax. cette large coalition lancée par le PDS mais Cheikh bamb mii am na rôle bu mu mën a jouer. ban rôle. il peut jouer parce que ce qui est sûr et certain am na lu bëri loo xamante ni ne mën na bañ a nekk regret sax mais tey jaaxle na tey bi mu jëlee chaperon takk ko ci ci ci ci assemblée nationale tey amul lu muy mujjee lu dul lii. il y avait des acquis du temps où Wade était au pouvoir. il y avait des acquis qu'on le veuille ou pas le électoral a été réglé le problème des élections du ministère de l'intérieur de celui qui qui devait être en charge de de de gérer yooyu yëpp réglé woon nañ ko carte d'identité woon nañ ko. carte électeur yi réglé woon nañ ko mais tey dafa am une nouvelle bu ñëw neex wax nga léegi Macky nous a aidé Macky a aidé le peuple sénégalais parce que tey permettre nañu ñu demante les moustique les les les les les quoi les mousquetaires. <laughs> les grands mousquetaires. Moustapha Niass Idrissa Seck Aminata Mbengue Ndiaye Malick Gakou Omar Sarr dimbali nañu ba ñu ba tey. mëntuñu le l'opposition mais yow avec l'appel de ak Ablaye Wade am nga rôle yow mën nga seeti Bougane mën nga ko. Euh, sëñ Omar mën nga seeti mën nga seeti mën nga seeti Ablaye Wade. sëñ Omar. mën nga seeti dama la bëgg dama bëgg a dalal sa xel. waaw dama bëgg a dalal sa xel bu baax a baax. Mhm. ndax ba ñu nee banque leen seen tànk xalaat nañ ñëpp ba mu des soccant. Mhm. li yàq Sénégal nag mooy dañuy nekk ci mbedd mi di wax rek. Mhm. mais xamal ni ay nit yu analyser situation bi bu baax a baax la xam ko defe naa ni fi nga taxaw di wax sax xaw nañ ko gën a jéggi gën nañ ko sore dem bu baax a baax a baax li nga xamee ni moom laa bëgg a wax à l'endroit des sénégalais mooy que ni il faut pas nit ñi désespérer ci acteur politiques yi parce que bu ñëpp yemee am ñu gedd seen cër il faut pas que nit ñi désespérer ci l'homme sénégalais ndax am na ci Sénégal ñoo xamee ni lañ doon bay démb ak bërki démb ñu ngi koy bañ. ba fi ça va bu fekkee lii la ñuy gis sur la tête. non mais c'est difficile parce que addina moo jafe. addina moo jafe et surtout bu ndóol ak ñàkk gu tar àndeek mbir mi. Mhm. mais toutes les grandes révolutions tous les grands changements yi am ci addina ci crise yu mel nii la juddoo. ndax fa mu gënee jafe fa la lumière di génne fa taxawaay bu bees di amee li nga xam daal moom laay wax mu war a dalal ku nekk mooy que ne acteur politique yi nga tudd. Mhm. ñu ngiy dox ñu ngi wax ñu ngi gise ñu ngi waxtaan te incha allah comme dafa di loo xamee ni dañ dafa war a dëgër te dafa am solo dañuy def la tubaab ba di wax rek c'est parce que je suis pressé que je marche doucement. Mhm. ngir lan pour bu ëllëgee la fay génn. doon loo xamee ne bu jébbee dina dalal xelu sénégalais yi ci ëllëg goo xamee ne dañ ko war a ànd ñëpp tabaxaat li nga xamee ni yàq nañ ko. alors dañuy wax waxu immigration irrégulière c'est que quoi qu'on puisse dire ndeysaan